waaw man ak Ngaaka Blindé nag suñu relation ay relation la yoo xam ni man ak moom dañoo nekk xale euh, daan ànd moom ak sama xarit bi may awu sama ginnaaw ñoom ñaar ñoo bokkoon benn classe bu yàlla yàlla def nag bu ñu musaana génn école ñun ñëpp ñoo daan nekk fiñ bi place bu moom laa taxaw léegi foofu lañ daan nekk ci benn place bi defar portable lañ daan toog waxtaan cër bu mag ma rab bi man maam cër bu mag ci musée Sénégal a am. parce que bu wootee malgré xat nañ mais il faut ñu ñëw un ndax ñu du ñëw parce que Sidi war na jouer suba Sidi mi ngi waaj grand théâtre Sidi ah, war loolu am. waaw maa banlieue dara ñu ku ci xew ci jàpp na suñu bopp fekk ma Sénégal damay damay ñëw pour dëggal la. adduna di waajal le 10 Sidi Diop le 10 le 10 le 10 kenn ku nekk si ñoom gan gan gan. waaw xam nga gis looy waajal fii biir Grand Théâtre loolu laa tuddee loolu laa tuddee l'événement bi ñu ko am. le 10 janvier incha allah fi ñu ko am ñëpp kontaan 2019 ñëwaat nañ ñu waaj a dugg ci 2020. ma def ay spectacle yu mag ci 2019 bi. mais damay dugg nag sama deuxième grand théâtre bi 2020 le 10 janvier. maa ngi ceeg nag euh, Kandji production bi. te incha allah waa grand théâtre bi nañ ma déglu bu baax te xam ne le 10 janvier dinañ gis ñu ne musul gis ci 14 Sénégal dinañ gis ñu ne musul gis.